ñaari xale yaa nga ca jël na ko dibb na tànk ba yokk xale ba bañ waaw ah a dañuy bëre wàcc na door tànk sukk ca suuf lu mu bëgg a def loo bëgg a def loo bëgg a def nu ngay xandaalu de loo bëgg a def kottu ca ginnaaw cey lamb jël na ko jël nañ Libidor daan nañ Libidor Simon Ñoojoor daan na Libidor tànk ba la jël tëj ko mu toog Libidor waaru na waaro yaa xool tribune bi yaa xool mbooloo nga mbooloo mi ni mu bëree Boy Niang baa ngi koy xool ba nag ñëpp day wax ne Boy Niang pare na maa ngi woo ñëpp maa xeeru ngor insha Allah rabbi Doudou Sané jël na ko xale ba bañ ah oui Doudou Sané ko bëgg a forcer Doudou Sané ak xale musnaax bi du yomb daa day liggéey mbër mi ngay gis muy bëreeg Doudou Sané am jaaykat la Petersen la nekk waaye da koo boole bëre wax na dëgg bëre plus métier waaw waaw égal njariñ kese nag. ñaari mbër yaa ca mu Ibrahima Ndour ñaar ñi wax Ibrahima Ndour kenn def quart de finale ay gara laay njaay lamb ji mu dem toj ko Libidor ak Simon Libidor ak Simon yëkkati yëkkati caxabal tey ji làmb Libidor ak Simon bu ndaw a ndaw bi la xeexoon ak moom jaay doole mbaa duñ la fàq daan la jël nañ ko oh waaye jël ba rëy na waay waaye biib jël la rëy Habib kit tànke la bale ñaari tànke la dajale mu daanu ba jaaxaan jógal sangu ji jël ban la daana rëy ay waay tey tey noo ñëwaatee. waaw préparé soo rek di ñaan yàlla yàlla même ndam bi ñoo ah, fayda rek fulla fayda ak jox ci kan ok. arbitre soufflé waat na. boo xoolee combat yi maanaam millions yi dañ koo xaaj ñetti pàcc ñu ndaw a ndaw ñi am na luñ ci am ñi ci digg bi am na luñ ci am gis nga ñee ci ñu ndaw ñi lañ bokk. takk na ko dina ko daan ñu nga de mu ngay dox moom jóg nañu eh mbaa dafa trois ah, daanu nga daanu nga daanu nga daanu nga bu yàgg daan nañ la jël ba da koo bet jël dut saane mbotti na ko eh xale ba bañ na waay jag sa waay ki sol nañ ko Doudou Sané ngoon ci géew bi Doudou Sané na daw na dawoo gën. ko maa ngoongu jëlu la fàq na ko fàq na daan da wër ndombo bañ na bañ na bañ na oh avertissement nee ko bëre woo bëreel balaa lamb jee jeex ngay ñàkk bëreel bëreel leetar na daan nañ la daan nañ la daan nañ la la bu yàgg de Doudou ngay daanu de mu ngay daanu yësi de daanante ba pare far fa taxaw ye jóg na de oh akolaat waaw mu ngongu de xoolal ma ko borom joof yoor a ngi xool ko ee eh way am na luy nàcc ci moom borom joof yoor a ngongu duudoo mu nga jëm ca médecin ba toppal na bi en attendant ndaysaan diggante Doudou Sané cey lamb simple moo neex nga jël ko xale ba bañ bëre leen waay jëli na ko Doudou Sané eh waaye Doudou Sané mii Libidor ak Simon Simon bu ñoojoor ak Libidor tamit ñu ngongu ci beneen angle bi jàppante bu tar arbitre àtte na leen Doudou Sané bi donte Doudou Kopp waaye mu ngi résister waaye na moytu Doudou tee ko bu baax moom juum juumloo ko la mën a def cey lambi simple mi tey tey tey jàllaa bi nga sol tey. tey da ngay bëre wala da ngay loo da ngay. waaw bëre bëre naa la waa ñaar daan jëli bu. da ah, la daan. ñaata naa wi jël na la daan Koña. Koña waaw. naan la yàlla baax na compétition la rek. compétition la rek. demi final la la daane. waaw. ok boobu la. daal maa ngi raw. ci loo ne. sant yàlla bu baax. mais maanaam da ngaa réer. non maa ngi fi de. foo làkkoon ak lu taxoon nga làkk. non maa ngi fi de maa ngi da diggante Dakar ak Joal rek. Ah. waaw. nga a mooy sama deuxième lamb quoi. Ah. waaw. mais sama première lamb dañoo dem ba demi-finale lamb bi yàqu quoi Ndiaffate. waaw. waaw may nuyu amateur yëpp. waaw di nuyu sama fans yi. ñaanal wér gu yaram. waaw di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di ñaan jàmm si Sénégal quoi waaw. tey noo dikkee tey. waaw ñëw rek comme d'habitude rek comme niñ ko doon defee rek. ah ma dégg xale yi. waaw sama nawle yi sama yi waaw. waaw la rek. ba ci kanam kon. waaw incha allah. teg. cinq millions fi jag si teg tey. wallaay. mbooloo mi ni mu bëree amateur yëpp wuyu si tey Habib gis nga stade bi daa fees dell Mamadi Ndiaye ñëw na Mamadi Ndiaye la ñu daan noonu Doudou saane ngongu ci beneen komba Doudou Sané ngongu ci beneen komba waaye li ci géew bi jël nañ kële dañ lay daan wala bañ na bañ na Doudou saane mu ci géew bi Libidor mook Sémou Niodior wala Maximo bu ñoo joor dul saane lu ko bëgg a def jaay doole xëcc da koo bëgg a jaay doole ndeysaan Iba Mar Joob a ngi sëlmu wala daa takk da leen wala nu ko koy ardo moom fan gaañu si combat bi si combat bi la gaañ waaw ajaay lool mbër maa gaañu da la wala

maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar mais lamb joo dem yëngal ko. heure booy jël xale yu bëri ñoo xew la dama wax sama gars yi sama booy ferna xale bi màgg na sëy ni dugg ba mu nooy ba xew. waaw parce que ñii dañoo war a am dara. ak moom sol lu mu ko bëgg a def cey eh, na ko oo oh. boobu jël rëy waay ñi la ñu wax mooy poids bi gën rof eh! na ko galgal da ko bëgg a yëkkati waaye doole du saare loxo droitam bi bëtante dañ lay daan da lay daan na ko Doudou daan na ko xale joof yor ba daan na xale mbus naax bi waaw ndaysaan jeex na bu yàgg a yàgg waa ji jeex na bàyyil kii làmb ji jeex na ni waa lii mooy lan ñii lu leen da Habib làmb ja jeex na ni li deesu ci wax eh waay waa Doudou Sané moom daa yëgut ne bëre bi jeex na fee naa la Babacar maa lay ziar bu baax a baax a baax. delloo ziar tey yéen a ngi ci stadium bi mu mel ni lamb simple bi actuellement mise yaa ngi yokk mu ngi dox mais def nañ ci ñetti catégorie léegi fii Dakar muy loo xam ne CNG Jackson moo ko proposé CNG nangu ko. ma ziare fop euh, di la ziare yow mi nga xamante ne yaa yaa ñuy joo euh, laajte euh, di ziare amateur yëpp ñaari ko ñetti catégorie yi moom man su ma jëm boppam d'accord ma ci. parce que am xam lu tax ma ne la d'accord ma ci bu njëkk lamb bëre daañu ko doon jàngee fii ndakaaru àll ba lañ doon jàngee poussière rawgadu ba demee ba mat mbër nga doog a ñëw ndakaaru mais fii mosuñu xam ndakaaru ñuy jàngee fii ay ay poids léger ay poids lourd ñaari catégorie rek doyoon na. mais mais mais mais loolu est-ce que du yokkute rek est-ce que àll ba rek lañ war a jàngee poussière. déggu ma ma que àll ba rek lañ war a jàngee loolu. waaw ci déggoo li ma ci làmb foofu lañ ko daan xamee foofu lañ daan jàngee poussière raw gadu tànk tànk sa foofu lañ ko fii nga fale nga doon jàngee bëre ba mokkal ba nekk ba mat mbër comme kalaasu ñoom duudu kalaasu ñoom ordinateur ak ñeneen nga doo a ñëw ndakaaru njaay gii bu ñu demee ba di def ñaari catégorie doy na mais buñ ci buggee yokk kii xanaa bu ñu bu ñu tegee 10 millions dañuy def dañuy defaat troisième drapeau ndakaaru njaay gi ak àll ba mu roowut lamb ji bu guddee am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk béréb yoo xamante ne wóorut man ngay wàcc fi ngay wàcc man nga yor oto wala nga ñàkk a yor oto man nga jaar yàlla tere gaay agressé la kon fii ñaari catégorie rek doyoon na. yow côté sécurité bi ngay wax daal yow sécurité bi moo la tax di wax sécurité. wa voilà wàllu sécurité wàllu sécurité waaw. maa ngi lay ziar. yàlla yaa nangu ziar. Ibou Diaw. waaw Faata production. waaw bokk ci SF Faata production dëkk Joal Fadiouth waaw. yéen di waajal. waaw ñu ngi waajal le 4 Mbour. stade municipal bi. 3 mi mise bi 3 millions di oo mbër yëpp. di oo amateurs yi làmb yëpp. waaw di gërëm ñëpp aussi di leen sant. yow aussi Babacar ñu ngi lay ziar bu baax. yow moom mention spéciale waaw. ana Yaxya Yaxya mu ngi fi mu ngi fi muy Joal sax fa laa ko bàyyi. mais temps teg ngeen fi làmb Joal mu am coow lan moo indi woon coow loolu ba làmb ja yeegul. non làmb ngeeñan la woon. ngeeñan ngeeñan maa ngi jégalu ngeeñan. ngeeñan lañ teg woon làmb ba mais du dara ni ñi nit ñi ñoo ëppoon géew bi xam nga di oote ba li nga oote yëpp mu ëpp la doole nit ñi kese la nit ñi ñoo ëppoon géew bi doole waaye mbëri aussi réccu wuñ ko waaw parce bi bi làmb bi jeexee. même paaru Yékini li mu waroon a am si paaram li ko waa CNG waroon jox dana may naa ko lépp mbëri yaakaar naa ñeent mbër moo desoon sa yaakaar naa ku nekk li nga waroon a jot jot nga ko. waaw amateurs yi xanaa ñoo fa perte xanaa bis boobu. waaw parce que amateurs yi sax booy xool ñoo yàq làmb parce que dem nañ ba fuul bi ñoo dox dox si digg géew bi mbëri amatuñ fu bëre amatuñ bu fuñ jaar pour bëre sax après làmb ci la mujj tas sa ñeent mbër moo desoon si poids lourd bi ak finalu tànk yi rek moo desoon mais demoon nañ ba sës affaire yooyu daal. kontaan ci yow. mais ñu ngi siy jégalu parce que 2018 ba léegi Fata production ñu ngi tëgg làmb sa làmb mos sa tas mos sa yàqu yëpp dem tëgg nañ fi làmb yegg sa yaakaar naa loolu moo gën a yéeme xëy na loolu la ngeeñeen moom loolu la ko yàlla dogale woon sa ñu ngi siy jégalu ñëpp parce que bëgguñ aussi làmb ñu koy tëgg sa yeegul ñu ngi jégalu ñëpp di leen jaar jaayëf. lay fay di nuyu waa Equivox tey boo xoolee Jax daa mel ni daa andi leneen muy ñetti catégorie Dakar mosu fee am ci àll bi la doon am moo ndi ko dakaar loolu yéen ñi nga xam ne yéen ci nekk nu ko dundee. non dama lay rectifier tuuti rek du Jax moo ko indi CNG moo ko indi. ah CNG bi la moo ko indi parce que Jax dafa teg xaalisam léegi CNG fekkoon mu doon xalaat nan lay def ba catégorie yu ndaw yi gis ci seen bopp. léegi nag mu tombe nag ci mise u Jax ñu organiser ko mu nekk trois catégories mu amoon bële. amaat na tey tamit donc lii mooy li nga xam ne. Boucar xaaral ba ñu pare. lii lii moo xew moo tax mu amoon bële amaat bi bële nag xawoon na guddee parce que dañu yéexoon commencé waaye pour bii moom wax dëgg yàlla balaa 21 heures yi lamb di tas Dakar rek lay tas incha dina jeex booyu ndaw yi gis nañ ci seen bopp parce que gis nañ fi ay ngóor ñaax ay seeni semaine booyu ndaw yëpp. te licence bi li muy jar ci mbër bu mag bi moom lay jar bu ndaw bi nañ leen may chance parce que dañ leen soxla ci lamb lañ bokk merci beaucoup am na solo tey ñaata mbër ñoo bindu ci ñetti catégorie yëpp ci catégorie bi gën a ndaw catégorie bi gën a ndaw euh, un million lañ leen tegal ñu nekkoon 32 lutteurs léegi bi ci tegu 64 lutteurs la ñu tegal leen un million cinq cent poids lourds yi nekkoon 32 mbër ñu tegal leen deux millions cinq cent noonu la demee li gën a am solo sax boo ko seetloo tey ci 5 millions yi. ñaata Ndiaga ñu nga ca de ndeysaan Gueye Birame Manga Ndiaye de final lesa yi ndeysaan diggante Koña ak ki nga xam ne nii Koña ngi ñoon ginnaaw noonu di bëre ay waay mbër ay waay mbër ñaa daan ko jëli ko ñoom buur siin ee eh way ngi noonu ñi ma mës a ma daal la nga daal ma yaa ma loolu waxi mbër rek du yéen gis ngeen Papa du maa taxaw gis ngeen mi waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek amul benn mbër buy tax ngemb